waaw salaamaaleykum waa téléspectateurs yi salaamaaleykum mbokki éleveurs yi ñu ngi leen di delloo ziar bu baax di ziar njaga di leen dalal fii nga xamante ne mooy bergerie Sopou Khadim nekk uh, fii Saladam 6S 14e édition nekk stand numéro 96 ñu leen andil fii suñu exposition suñu deuxièm sortie foire si Saladam. njaga bi mooy suñu deuxième sortie Saladam parce que suñu première sortie mi ngi nekkoon 2019 sectoriel ñu qualifié dem Saladam dem foofu jël deuxième meilleur agnel 2020. après ñu ne pourquoi pas deuxième sortie bi ñu ñu liwaat ko mais quatorzième édition bii nii waaw gis nañ si avancement bu rëy parce que première sortie bi nekkoon na boobu éleveurs yi daanaka tendance bi élevage am ni amu ko woon donc deuxième sortie bii nii nekkoon na ku ñëpp sortie boo xam ne ñëpp doon nañ ko xaar aussi bi ñu ñëwee si yàlla daf ñu qualifié ñoo bokk si si ñi nga xam te ne qualifié ni pour ñëw si salon bi ah te bi ñu ñëwee aussi amuñu si benn regret. waaw tey dañoo andi recommande nañu andi mooy mal bii nii taxaw. ak ah, ay production am ah, benn jabaram parce que bi mooy troisième sortie foire mu tombé saladam bi ñu andi ko andi ay doom mu tombé ñu nekk ay añan ñu andi waale leen. ñu commande ngi si 27 mois dafa nekk xale aussi soo ñëwee def lecture si foire bi da nga xam ne xar ñoo ko mag te aussi ñoo ko mën te liñ ko méngalee parce que xar moom ku la gën a gën la pare moo la gën a mën a gagné donc looloo tax duggaluñu ko pour évaluer mais ñu bëri doon pourquoi pas fa Saladam 2025 mu ñëw confirmer si Grand Mali incha allah waaw liggéey nañ si ligne yu bëri parce que bi ñu débuté suñu élevage nañ doon dugal maanaam bu ñuy wax Carvajal nekk doom si Anta yaayam nekkoon surtout Bachir bi fa Carvajal joxee kii jóge euh, kii ñëw Kabir ñëw Kabir nekk doom si Roi Bachir yaayam aussi nekk surtout surtout Koromok après ñu fa dugal Kérésène ñëw de commande bi moo nekk suñu quatrième mois bi ñuy liggéey en en même temps moom mi ngi liggéey keroog di liggéey mais aussi yor na fa benn doomu njëmbat boo xamante ne mooy tëjee léegi. foire bi tout est impeccable macha parce que gars yi seen liggéey bi rafet na organisation bi jaar na yoon am na animation communication bi jàll na on a rien à reprocher quoi vraiment liggéey bi rafet na trop te bi ñu ñëwee li ñu ci xaar sax lu raw lañ ci fekk. aussi satisfaction on est content 10 jours yi amuñu benn jafe-jafe boo xamante ne dund nekk si foire bi. au contraire mbégte lañ ciy dund waaw ah, vraiment à satisfaction a vraiment visibilité. waaw business bi mi ngi si parce que vraiment bi ñu ñëwee fii nii prix yi doon dégg si xar yi dafa dafa dafa yokk parce que année yii nii à chaque fois ñu may woo di ma woo di ma ñu proposé ay prix mais vraiment ñu ngi toog suñuy tànk daal uniquement pour lu ñu dëjee ah xanaa ñu maintenir bureau bi rek parce que vraiment li ñuy def nii dal na xel. di soññu éleveurs yi ñi nga xamante ne duggaguñu si élevage bi ñu ngi leen di encouragé pour ñu ñëw bienvenue dans nous. ñu ngi leen di ñu bu baax di leen di leen bienvenue parce que day gis ñoo xam ne ñu bëri ñu si biir Fass ñu nekk ñu ay éleveurs vraiment ñu ngi leen di encouragé bu baax pour ñu ñëw nekk suñu biir.